Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Senegal. Senegal, bitim rew fu waaye mana nek di ab sénégalais ñu leen di balu ak ci wax ji waye mënul ñak. ndax suñu rew kat dafa nek ci tank yaqku. Yaqku bi nak Macky Sall do nga moko def parce que mo genn ci lam waxana ñun président de la république ñu fal la Sénégal yépp fal la nga def ñaari mandat war a jeexal dem sa sa morom ñëw nga ne doo bàyyi mukk faaw nga indi fi histoire faaw nga indi fi xeex te ku wax nga ne daf defar appel expression dig jël enquête yóbbu tribunal juge bi def da mandat dépôt li nekk ci kaso bi léegi ëpp na junne doomu aadama tëjeewuñ leen dara loolu tooñ leen bërki dem bu ñu déggati beneen xew-xew loolu la wax seenaa nga xam ne tey yow Macky Sall moo la fal 2012 falaat la mu àtte dëgg ndax siis ba ca Casamance teg mbir yi ci dëgg teg ko ci yoon képp kuy magistrat xam nga ne ci dëgg la ko teg seenaa xool vérifié xam ne lii mooy dëgg ñu jaar ci dëgg nga xëy na da leen fay génne defe naa sax génne ngi leen fa indi fa yow sa Sénat bopp yow boo moom parce que ñi nga fa indi xam nañ leen ñu nekkoon APR ñaar ñoo xam ne xam nañ leen ci APR. li ñuy wax nag waxuñ ko ci politique lenn ci këri ni ñoo def daje démb ci ngoon imam yu bari du imam yépp nag ndax man duma tooñ xëy na am na ñoo xam ne peut-être ñoom du ñu wax waaye li ëpp ci imam yi ci dëkk yi woosante yépp def nañ daje bu rëy démb waxtaan ba yeewal suñu kàddu ci réew mi nga xam ne dafa bëgg a yàqu kenn rek bëgg koo taal muy Macky Sall faaw ñu wax comme li ñu waxoon keroog donte kon ñun ñoo la mag waaye yilif mënuñu laa seetaan nag ngay def loola neex tribunal bi gendarme yi police yi am na ci ñu baax am na ñoo xam ne sant nañ saaxo parce que dañuy seetaan di la dimbale ci loo bëgg su fekkoon ne tey boo bëggee def lu bon ñu lànk kon tey li xew ci réew mi du fi xew waaye yow ku wax police dem jëli indi enquête yóbbu tribunal tribunal def mandat dépôt looloo tax léegi loo bëgg a def def ko parce que dañ laa dimbale waaye nag ndimbal dafa am fu muy yem monsieur le président de lii nga bëgg fi nga bëgg a jëm duñ ko nangu ay CEDEAO nag ma duma ci sori CEDEAO ku ne xam ne ne loxo Macron génnu ci Abidjan Ouattara ma nga fa ba ma dégg ñu naan Suisse bi Abidjan la dëkk Suisse dëkk Abidjan mën naa def lu Ouattara àndul mënul nekk te yow Macky Sall sax yow CEDEAO at yii yëpp li mu lay atte nangu woo ko yow wax na la fi affaire u teg ku ci suuf nga bañ affaire u Karim Wade wax na ci nga lànk naka ngay fexee tey di waxaat lu jëm ci CEDEAO même CEDEAO tey ñoom man de wóoluwuma leen wóoluwuma leen ndax li fi xew lépp ci àdduna bi ñu ngi fi bi ñu jàpp soo ko di ko toj oto bi di ko génne di ko toroxal mu feebar fi ñu blessé ko berkade këram pendant presque ay weer CEDEAO nga fi lu tax waxu leen leader politique démocratie ngeen wax yéen bu dee démocratie moo leen tax a toog ci Abuja mais doxalu leen démocrate parce que bi ngeen déggee ne dañu jàpp benn leader politique ci loo xam ne du dëgg seen intervention kenn déggu ko fenn. loolu yëpp suñu yoon nekku ci ñun suñu réew lañ moom yéen waa Sénégal nag dama yaakaar ni dafa am lu leen dal naka ngeen di bàyyee Macky Sall mii rek lu ko neex mu def te nag maa ngi leen di interpeller yéen ñëpp ñi bokk Sénégal ñun nag politique wuñ ngeen xam bu baax ci ne waxuñ ci politique waxuñ ci benn parti parti bi yàlla rek ci li ñuy wax dëgg kenn mënuñu tey wax dëgg nag Macky Sall mënu ko. dëgg moom la moo ñu moo ñu fi teg ba ka ñu woyu suñu borom ndax ñi fi nekkoon ci réew mi dëgg lañ fi bàyyi woon dem dénk ñu Sénégal kon waruñoo seetaan Sénégal mu dëgg ci ndëgg sërëx te kenn waral ko muy Macky Sall mii CEDEAO lu leen neex yéen a xam ñun ñu ngi ci suñu dëkk suñu réew du ñu seetaan suñu réew yàqu duñ ko nangu léegi nag yéen parti opposition yi ma day dama jaaxle ñàkku sax dinaa ci am ñu ma tudd waaye jàmm rek laa leen tuddee. ndax ku mel ni soxna Aïda Mbodj bu baax moomu Habib Sy yaaram boobu ak ñeneen ñi mel ni ñoom lu tax yéen ñi nga xam ne yéen a war réew mi ne da ngeen di def campagne kenn ku ne bëgg nekk président de la république xeex bi benn xeex la Ousmane Sonko lii du affaire Ousmane Sonko lii Sénégal la Sénégal moo xewle Ousmane Sonko lu baax la bëggoon rek indi procès teg. waye li Macky Sall def nak concerné wul Ousmane Tonko mom kenn lii Sénégal la concerné bo démé ba yow mënutoo wax dëgg amato jamm barki dem ma ngi suñu rak ju baax jooju dëkk yes muy def benn tournée jàkkaarloog sàndami na len suma droit ci la nek ñi ne ko dok fi defee wa légui yow bo wàññee ko dem sa kër tok nga yaakaar Ousmane Tonko ngay xéxlé sa bop ngay gañ nañu and nek ben bop bu ngeen bëggé réew mi jaar yoon ba fi sé war nekké lim fi doon def jugee fi Abdou Diouf tok jógee Abdou Diouf jógee fi Abdoulaye toog loolee bu ngeen ci bëggee génn ku ne bar pàcc boppam ba ci docteur Abdourahmane Diouf maa ngi koy sant di ko gërëm nit ku baax la dégg naa sax wax ci affaire prénance bi waaye nag ba ci Mamadou Lamine Diallo yéen ñi nga xam ne yéen a bokk Sénégal man de dama jaaxle ci lu tax mënu leen a déggoo lu tax mënu leen ànd nekk benn baat fexe ba jubadi gi nekk Sénégal mu dañ bu leen ko jëmee ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko li mu bëggoon mooy lu baax indi procès am ne man bu ma nii laa bëgg ma doxee waay waay ngel la bu ñu bëggee kenn ku ci nekk nga am noo melokaano wala loo bëggal sa bopp dara du sotti ba yàlla waxee na àndi leen nekk benn buum ma indi ci yenn yërmande booba la wax ji sotti wax naa leen ne Europe ak Amérique seen réussite gi yépp ànd nekk benn bopp moo tax ñu man ko Union USA ku ni dégg na ko 52 pays tey jii fu yëngu ci àdduna bi bu ñu jigee rek gañe la nga dem Europe Union européenne ku laal kenn ñëpp jóg ba tax ñu am doole ñun ñii nga xam ne du ñu dara ay benn benn doomu aadama ñu ne du ñu ànd Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko xeex bu du xeexu Ousmane Sonko na ngeen yeewu xam nga dem ak Sall li mi def nii yéen a ko ko may de yéen a ko ko may nag yéen yéen a ko ko may man de du ma politicien ab imam laa jàngalekat alxuraan laa soxloo ma ci nguur dara ku falu sax boo xeeba sax bul ma woo mën naa am sax doo ma gis waaye nag damaa jur ay doom yoo xam ne ñu ngi ci police bi. te dañ dégg ma dé bu ñu ma déggee dañ xam ne sama papa ngi wax am na ay doomi juge ñu ngi ci tribunal bi am naa ñoo xam ne tey fii la ñu yaroo ay gendarme lañ ñu ngi ci gendarme yi mais kon nag ñun ñii waaye nañu xool suñu diggante suñu borom waaye lii ëpp na benn Macky Sall di politicien fekk la nga jàng ba nekk commissaire de police grade bu ne nga am ko mu ñëw di la tourner ci lu ko neex jàpp loola sa mbokk nga jàpp ko fi ne nii junne ak nangam mu ngi ci kaso bi tëdd waxu lu leen jàppee moom mu nekk ci gundaandaat gi moom nekk ci piir mi. benn doomam du ko dugal kaso amul benn mbokkam yéen bu ngeen mën a wax ni kii Macky Sall mbokkam la tëj na ko ci kaso bi noppi rek jàpp ci Omar Diagne tëj Falilou Keita tëj duma lim ñëpp sax waaye ñi seddoomi doomi Sénégal yi yëpp a ngi ci kaso bi di souffrir di sonn waaye yow Macky ñii loo leen jàppee waaye yéen waa CEDEAO ana ngeen xanaa yégu leen li xew Sénégal bala ngeen wax waxu affaire ay yeneeni mbir te fekkee da ngeen dëgg ngeen fi ñëwee laa de c'est parler tous y a da que fi ñëw pour dëgg réalité et sincérité il faut parler de la situation du Sénégal il y avait plus de 1000 personnes qui sont dans les prisons actuellement pourquoi vous dites pas rien de tout qu'est-ce que vous voulez il faut dire la vérité parce qu'actuellement, il y a des def qui xam ne des choses, ci ñu des wolof qui ont ñu dégg tubaab mais ni dégg wolof ma ngi wax ak yéen bu choses. da ngeen ne CEDEAO mo leen taxajok pour def ben tribunal bo xamné ku dëng ñu parce que xam ngeen ne li nekk Sénégal jaaduwul élection yi def ñeenti weer président de la bi di jéem a encore euh, dindi Sénat di ko sànni fale di indi Sénat boppam yéen loolu rek fu ngeen toog fu ngeen nekk xanaa déggu leen loolu xanaa gisu leen loolu waaye nag maa ngi dellu si ma ne yéen waa Sénégal ma de dama dama jommi sax xoolal démb làmb ji ni mu mel fii laa toog télé di ko seetaan la fa nekk ci doomu aadama yépp deug la xali ñu ngi leen sant di leen gërëm Ousmane Sonko Ousmane Sonko way Ousmane Sonko amna leneen lu mu gëna soxla moy taxaw pour mu génn ci biti parce que dafa yag fépp waxew am d'accord ngeen sécuriser sécuriser baxna trop waaye Ousmane nak daf gannaaw ya yaakaaram daf ko def ci sones bi ci xali yi na leen lool gannaaw bu mu yaakaaree yalla ngeen la way li mu ngi bëgg ëpp nak japp nit teug ci deug ci put gi rek noppi diko rigi ji japp lu mat junni nit ak nangami témir noppi rek pat loolu fan la tege fan ak ban réew moo def loolu ci àdduna bi ñu noppi rek ñu ko seetaan rek moo loolu doyatu ko mu ne xëy xëy rek Sénat bi ne moom day jox Ousmane Sonko parrainage am mu xëy rek limosé nguur su baax soosu donte kon am na sax ay yu ngeen def ndax ñaari mandat yi yépp lépp loo bëgg rek seenaa bi defal na la ko tey nag dëgg ñëw na nga bañ juge bi àtte na nga bañ man yaakaar naa ne suñ mbokk tribunal cour d'appel wala tribunal régional maa ngi leen di sant di leen gërëm am naa yaakaar ne ah njort naa ne seen xel ngi bëgg ñëw parce que nag benn nit du nekk ci réew mi rek ko di jàpp yu tëj jàpp yu dóor xoolal li dee ci doomu aadama ci xale xoolal jamono élection yi gis naa ci benn sàndama bu yor fetal gis naa ci koo xam ne tey ca Tamba dañ koo dóor bali fetal yaa ngi jóore bopp bi toj monsieur le président daay bi gis xoolal ak sa bët lii fetal lii te li may wax lépp lu am la ñëpp xam nañ ko ñepp nopi rek ñun nak lenn ci kër diine yi ñoo ñëwaat xam naa ñenn ñi sax wah, bàkkee bari wax waaye déedéet wax dafa jot ñu war a wax wax hutuñ ci dara hutuñ ci ku ñu gërëm yàlla rek tax ñu wax dëkk ci réew mi nag jur ci ay doom comme niñ leen ko waxee réew mi suñu réew ci européen nag keneen ak keneen ñun suñu réew lañ war taxaw rek ko amul benn réew ci àdduna bi boo xam ne tey seetaan nañ seen réew mu yàqu amul ba ci réseau bi ñu wër ni tey du Mali du Guinée du Côte d'Ivoire du Niger mais réew waa réew maa koy defar monsieur le président de la République yow dañuy waxoon ay wax nekk ab Ablaye Wade ne da nga soxla réew mi nga indi ay conditions wax ñu ànd ak yow fekk la si te yow sax topp la wax naa ko keroog yow yaa waxal sa bopp ne am nga 7 milliards wala 8 milliards mais loolu dañu la ba léegi ñun amu ci kenn ci Sénégal koo xam ne mën naa teg baaraamam. ci loolu ne kii kat lii mu am fii la jógee dafa doon def commerce dafa yoroon société dafa yoroon usine bu boobaa ñu xam ne usine ba mu yoroon ci la jëlee lii wala dafa yoroon ay tool di bay ñu ne tool yee ci la jëlee lii mais loolu yëpp léegi léegi ñu ko ñun ñu am ngor ak noppi bañ laa topp yow nga dañuy topp te defuñ la dara tëj ñu ci kaso yi. doom yeeg jarbaat yi suñu jarbaat ak ñu doom ak Sénégal yëpp noppi na parce que di seetaan xale yi ñuy fitnawu ci kaso yi mais loolu daw na yaram. ana fu Sénégal yi nekk Macky Sall bàyyi li ngay def nag ëpp na lii nag du dem du dem de ñi ngay tëj bàyyi leen ñu génn bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi këram tëjee woo ko dara tooñ la tooñ nga ko def te nga ne nag léegi bu ko kenn wax man danaa ko wax obligé wax ko parce que yow nit nga comme ñun bàyyi li ngay def ñun dañ laa faroon jeexal nga yow taxaw nga ne léegi doo def troisième candidature nga dellu waat ci daxawaat ne la ma waxoon maa ngi koy jeexal naa lépp lu tribunal indi ci ndogal dinaa ko nangu tribunal dogal nga bañ naa dogal nga bañ yéen ñi nga xam ne yéene yi magistrat yi waaye ma ne seet leen seen digganteeg paxam bàmmeel wax naa ko waxati ko seet leen seen digganteeg ku fanaan ci bàmmeel ñetti fan te ñun ñëpp loolu ngi ñëw ci ñun ngeen la waaye alal neex na est-ce que xam ngeen ne mbaa xam ngeen ne képp ku ci jël alal joo moomul doo ko lekk ma wax leen ko mu leer nag képp ku ci détourné alal joo xam ne population bee moom. nga jël ko def ko ci compte bancaire yi wala nga gas ko suul billaahi la si laa lay laaw doo ko lekk yàlla du ko nangu dina génn ci seeram nga tëdd feebar ba keroog nga fi jógee ku ko def nag laa wax ku jël alal ji ñëpp bokk nga yaakaar ne jekk nga keroog nga jekkadi seet leen ñi ko defoon ñëpp fu ñu mujjee ngel la ñu indi Sénégal ci dëgg waay waaye waay waaye Macky Sall yaa ngi tooñ Sénégal yi tooñ yi jéggi day waajal kenn la watul kenn amatul jàmm moo xam ñu nekk bitim réew moo xam ñu nekk ci réew mi ñii ngi daanu ñii ngi sonn xoolal blessé yi amoon ci geew taawu bi ñuy def manifestation ñooñu ba léegi wéruñu seeni tànk yaa ngi newi seen bët yaa ngi suulu ñu ngi ci hôpitaux yi amuñ ku leen faj kenn joxu leen ndàmpaay waxuma laa di enquête nag di xam ñan ñoo ko def ak ñoo ko defut ñu ne ni te waay nga ne yow daal doo fi jógee yaa fi teg ki nga fi bëgg teg yaa fi teg Sénat boo xam ne sa parti ci la nekkoon bu élection yi ñëwee ñu gañeel la loolu loolu tax mais yéen maa ngi leen di ñaan yéen opposition yi yéen parti opposition yi ngelawaay ngelawaay waay leen ma waay waa ji ànd leen dindi lii fi ne ba pare su ngeen bu leen neexee nag ku ne naaw yoon na boppam waaye pour le moment du ngeen am réussir mukk te àndu leen man maa leen wax lii tey billaahi wal kitaabi mag laa mu yàgg fekkee ci Senghor ba léegi du ngeen am résultat mukk tànk àndu leen moo xam Khalifa Sall la moo xam euh, nu ñu koy waxati Habib Sy la moo xam soxna si ay demboj bu baax moomu. moo xam euh, Ngor Sosi nekk Thiès maire bi seet leen maire yi Macky Sall xoolal maire yi nga tëj Jamil Sané mii mu ngi ci kaso bi nga dem maire fële mu ngi ci kaso bi waaye maire yi nga jàpp tëj kaso maire lu toll ni maire nga xam ne magistrat la nga jël ko rek tëj ci loo waa est-ce que wax nga loo tëjee maire yooyu ci kaso bi lan maire yëpp a ngi ci kaso bi ay maire waaye yéen lii ni magis na ko dégg magis naa dégg lii ay maire maire yëpp a nga ci kaso bi nga tëj leen maire Parcelles Assainies tey jii nga xam ne tey ñun bu soxla woon tey moom lañ war a waxat mënuñu ko gis ana moom mu nga ca kaso ba Jamil Sané ci lan am na maire bu doon ñibbisi dégg naa papaam woo ko ne ko bul ñëw parce que sa turé nga aéroport mu toog ñëwul doomi Sénégal yaa ngi asil di daw di dem Mali nga dem Touré ma nga fa doom ju baax jooju yàlla na ko yàlla fay Ibrahima Sall ma nga fa jarbaat bu baax boobu yàlla na ko yàlla fay nekk ay gor ay gor juru leen yow Macky Sall nga dem ba sa yi jeex nga fexe ba xal yi daw di la daw gannaaw di daw di asile ci ay réew ngeen métit est-ce que yow lii jaadu na yow yaay kan bay def li ngay def ni lan la bàyyil li ngay def bàyyil Ousmane Sonko mu dem ñi bi këram tooñ nga ko tooñ yu jéggi dayoo CEDEAO yéen bu fekkee da ngeen di àtte il faut juger la situation de Ousmane Sonko si Ousmane Sonko qui a raison deful dara man xaaruma ay àtteeb la di set sama yoon nekku ci. parce que parrainage bi ngeen aayoon Macky Sall bàyyiwu ko ba ngeen ko waxee Karim Wade defu pourquoi vous n'avez pas encore suivi la situation de Karim Wade pourquoi vous n'avez pas suivi la situation de parrainage vous allez pour si c'est quelque chose qui n'est pas normal man sama yoon nekku ci loolu avocats yi jarul ngeen di sonn xam ngeen ne CEDEAO bële juge bi dëkk Abidjan Ouattara nekk Abidjan du wax la Ouattara bëggul gis ngeen. maa ngi gërëm avocat yi Ousmane Sonko yi maître Clédor Ciré Ly maître Khoureyssi maître Tall ak yeneen maître yi fi ne yéen ñëpp laa boolee ngërëm li parce que sonn ngeen te am naa yaakaar ne dangeen ngeen def ngir yàlla kese yàlla rek a leen mën a fay parce que taxaw ngeen pour Sénégal yéen magistrat yi it commencé naa yëg ne yéen ngi xoolaat seen bopp bu baax maa ngi leen di remercier wóor na ma ne am na lu ngeen doon nangu dootu leen ko nangu parce que ay góor ngeen te it ne ñun ñii ñëpp am na magistrat yoo xam ne tey ñu ngi ci bàmmeel yi te ñun dañ leen di fekki te xalaat loolu ngel la waaye buñ topp benn Macky Sall mu jàpp état bi def ko muru fu ko neex mu dagg seetal rek Sénat élection yi des ñeenti ñeenti weer mu ne dee sànse Sénat te Sénat du noonu. Sénat noonu lay doxee bu di sànni jël say Sénat yoo xam ne APR lañ nekkoon nga teg leen fi pour boo leen waxee ñu def loolu mënul nekk doo ci réussir duñ ko nangu kenn du ko nangu. ñun kilifaay diini nag lañ daan wax rek réew mi lu yàqu ñoo ko yàq parce que ñoo seetaan. parce que lii xew fii fi mu ne tey yéen ñëpp yéen a koy gis ñun ñii ñu ngi koy gis waxuñ ci dara ñoo ñoo di affaire yi di ko booy boyal ba mu tàkk waaye su fekkoon ca début ba lañ ko ne arrêté li ngay def yëf yi du fii réew mi kenn mënatul faju dëkk bi yàqu na kenn amatu sécurité boo xëyee lu mu tuuti tuuti nga dégg juróomi nit ñu dee léegi boo kalaamee doo am dara système bi yàqu na préfet yi perefe bu nekk tey yaa ngi fa toogal Macky Sall bu nit ñëwee may def campagne nga jóg yëpp ne la du ngeen ko fi defee. est-ce que lolu deug la est-ce que li ngeen di def yoon la gëna du benn yoon préfet Sénégal yépp bépp partisan bu jóg di def campagne ngeen arrêté ko ne doko def ba paré Vous avez nak Amadou Ba def campagne Nan day def tournée encore économique déedéet tournée politique lay def yeen nak Sénégal man dama jaxlé vous ngeen di nango li muy jall nak la ngeen muy hubbi leen seen xol yi ngeen ànd nekk benn bopp Ousmane tonk lii yoonam nekku ci Ousmane Sonko lu baax la bëggoon indi procès am teg na man kat bëgg naa maa ngi laaj Sénégal ñu ne ko loo koy laajee mu ne damaa bëgg suma falu lii laay def lii rek Ousmane Sonko wax waaye nag pour Sénégal baax ak Sénégal bon loolu ci ñun la Sénégal am na ay anciens policiers yu retraité am na ay anciens gendarmes yu retraité am na ay anciens euh, euh, xeet wu nekk am na fi ñëpp a ngi Sénégal nañu waxtaan ak réew mi. nañu waxtaan ak ñun bëgguñ ko yàq réew mi de woote wuñu di xeex waaye nag nañ jóg wax wax dafa jot bu ñu bàyyi Sénégal mii Macky Sall def lu ko neex rek te it nag yéen waa rajo yi ak yéen waa télévision yi samay doomi ndey ngeen maa ngi leen sant di leen gërëm commencé ko nag ci rajo bi nga xam ne moom wala boog télé bi nga xam ne ci suma biir xol la nekk sama doomi ndey moo man ko muy Seydi Lamine rahimahullah yal na ko yàlla yërëm wal télévision bi nga xam ne lu baax rek lay def moom laa xam de yàgg koo defit nag di tele boo xam ne télé population bi la ak télé yeneen ci yëpp muy tele bi nga xam ne muy bu bugaan bi maa ngi koy sant di ko gërëm des desitui Alaaji Njaay mu baax moomu ba ba ngay dem léegi TFM suñu rakk Youssou nduur dama am waxtaan wu tuuti wu ma bëgg a laayee biir ak yéen ngeen baal ma ci lu ma leen di bëgg a wax dama leen koo ñaan nag mooy réew mii di Sénégal maa ngi leen di ñaan te ëpp politiciens yi ku ci ñëwati si seen téléphone télévision yi di bëgg a xas ak gor xas as gor wax ko lu ñaaw lànk leen loolu ku ñëw bëgg a wax def émission ak yéen nee ko nag fii nag bu fekkee da ngaa bëgg a tudd Demba Diop wax ci moom lu bon du fi amee dañ koy interdit fii ndax déw ci tele jàpp nit xas ko ba ràcc ko wax ko lu bon ñëpp di ko dégg ci tele bi mu am occasion wax ko bu meree rek na xaaram wut umi émission bu ma demee rek dal ci ko waaje ba summi ko ba mu def yaramu neen ma di leen ñaan nag diggante njëkk ak teraanga rek ndax xam naa ne ñu baax ngeen parce que information bu ñu am gannaaw yàlla télévision yi yéen ñu ko jox wala rajo yi àdduna nag diisoo rek la ku ñëwati foofu di bëgg a def émission fas yéene xas as gor wala mu saaga ko bu leen ko ko may ndax waa jooju nga xam ne yàlla ñu yàlla musal ci moom mu sant jaxate bi mu ñëwee di xas rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci télévision la ko waxee ñëpp dégg ko te xam nga ne ëllëg yowmal qiyaam yàlla ñu yàlla musal mais ki jottali ak ki wax est-ce que danañ wutee atte ma di leen ñaan nag ñaan rek la parce que samay mbokk ngeen ngeen la waaye émission yi bari na waaye nag muy jigéen muy góor ku ñëwati ci télé bëgg faa xas jàmbur bëgg faa xas doomi ndeyam wala doomi baayam bëgg faa xas askan wi bañ leen loolu parce que loolu bu ko defee ba pare bu ci ëllëg saa kam doon xas dana ñëw moom itam fayu mu indi xeex wala mu indi mbañal loolu moom dama leen koy ñaan bu mënee nekk Sénégal dañoo bokk lépp bokk ndey bokk baay te bés bu nekk nga dégg nit wax ci télé bi dañuy rey Ousmane Sonko dañuy dem këram rey ko wax jooju kooku di wax waru ko wax ci télé ñëpp di ko dégg su ko naree wax bañ leen ndax kat kenn ku ci ne bëggoo ñu dal sa baay wala sa maam wala sa yaay wala sa mbokk kon nag ku jógati ëllëg ñëw wuyu wal fajri wala nga dem Sen TV wala nga dem TFM wala nga dem Desis TV fas yéene xas Mamadou Diop wala fas yéene saaga Khady Ndiaye mais bañ leen loolu. bu ko bëggee def nga ne ko déet fii nag job xaste dora job saaga boo bëggee saaga wala nga xaste demal ci internet ba nga def ko fa su boobaa borom dana ko mën a xam nu muy defante ak borom waaye nag ñëw ci télé ñu invité la nga commencé dal ci kaw nit di ko xas di wax ci moom lu bon ba doyal bi nga commencé àdduna bi yëpp di ko dégg yow mi koy jottali ak moom mi koy wax est-ce que da ngeen wuti àtte dama leen ko ñaan rek nag gannaaw bu loolu passé réew mi réew mi day ñun ñii ñuy woowee nit ci diine yi dama koy waxaat surtout nag suñu doom yi kër diina gu nekk nag am nga fa ay sëriñ yu ndaw nga xam ne ñoom dañuy maccaat xaalis comme kuy caat jën léegi yow Macky Sall yaa ngi koy tagg di tagg bay xas Ousmane Sonko di ko saaga nga ne yow nitu diina la nitu diina nga xanaa yow jànguloo moo xam nag fu mën a doon nag laay wax nag këru diina ñi ma wax xam nañ ko dañuy wax bay saaga Ousmane Sonko est-ce que yow jàng nga ci benn téere bu la sant ngay saaga sa nawle bu fekkee am na téere boo ko jàngee wax ma ko yow mi ko def. dégg naa ci ñu bari ay xale ñoo xam ne tey seen bàyyi suñu sëriñ lañ ñu taxaw di wax di wax ba saaga Ousmane Sonko dara taxul nag bëgg xaalis kese tax kenn gëmu ci lenn ala la ñu gëm bis boo daanoo yow Macky Sall bu keroogee ñu ñoom ñu wax la lu bon yow kilifa yi it ñu suñu morom yi it këllëg bis boo fi nekkatul keneen ki ñëw ñu tàgg ko ne ko yow la dégg te ngeen ko tudd Ablaye Wade dégg te ngeen ko ko bàkk dégg te ngeen ko wax ci moom lu baax te ku nekk defal na la waaye fàtte nañ ko. xamuñu woon Macky Sall waaye léegi fi ne ñëpp Macky Sall Macky Macky Macky xaalis rek waaye nag ma dellusiwaat ci suñu réew yéen politiciens yi waaye waaye waaye man dama seet ba yàgg ma ne ñii lu leen dal yow Macky Sall lu mu def rek ñu ne pat ku bëgg a def campagne ñu ne doog fi defee nga laayam la laayam laayam li daam mu baax moom di wax laayam laayam ñibbi sa kër toog na pat muy def lu ko neex moom dem ba xelam daj mu naan dafay buddi seenaa sànni indi ñeneen ñeneen ñooñu mu indi nag ay nitam la indi ngeen woo balaa CEDEAO bu leen xool ci CEDEAO xool leen ci loi wu Sénégal bii suñu magistrat yi bonuñu déedéet xëy na nit ko ne ak sa jikko waaye nag ay gellwaar rek a fa ne ay ñu baax a fa nekk man xam naa ci ñu bari erreur nag du ñàkk njuumte du ñàkk waaye ragal naa ne seen njuumte yi danañ ko redressé parce que nag bu Macky Sall demee bay buddi Sénat di sànni dem ba ab siis di wax mu bañ dama yaakaar ne ñoom it loolu def naa dana am fu mu àgg ci ñoom kon nag bu leen nangu bii. bu leen taxaw leen temm loolu nag maa ngi koy ñaan suñu mbokk suñu doomi ndey Alioune Tine Alioune Tine président Alioune xam nañ ne tooguloo waaye accéléré leen seen li ngeen jàng Seydou Gassama jërë ngeen jëf toogu leen de waaye nag góor góorgóorlu leen ci li ngeen jàng war ngeen a feeñ ba ñëpp yëg leen ci lii xew war ngeen a taxaw temm temm temm temm conférence yi takkarnaase lii bañ fi am parce que nag makki sàll bàyyil Sénégal pare nga lekk nga ba suur. raxasul te dem seeti fu aw parce que nag bàyyil keneen mu ñëw lekk loolu mooy dëgg ñaari mandat teg ci ñaari at ñu jox la assemblée bi jox la loi boo xam ne di laa may na la loo bëgg defal waaye waaye waaye waaye waay nañ joxal ngor waay waa ji la bul lekk sa mandat yi ba pare nga ne nag mandat beneen da nga ci def sa loxo loolu du dëgg du yoon kenn du ci ànd kenn du ci ànd parce que nag ñun wax naa la fi ñun politique guñ duñ ñu ma sa politique amul benn politicien boo xam ne man mii mas naa tegante yow loxo waxuma laa ay ay ay dërëm ak fifteen déedéet ñun li ñu ñor mooy réew mi baax li ñu ñor mooy nit ñi mën a faju li ñu ñor mooy réew mi am jàmm waaye yow réew mi am jàmm nga bëgg te yow bëggoo indi jàmm yow Sénat bii nga bëgg a tas wala tas nga ko Ousmane Sonko mii nga taxaw temm ne da nga ko bëgg a xañ mu nekk candidat te yaa nga barki dem maa ngi gis benn vidéo ñu naan na ngeen góorgóorlu wi na ngeen waxtaan ak nit ñi nit ñi duñ waxtaan ak yow parce que yow bëggoo waxtaan ak nit amul fenn fu ngeen mën a am ñu leen di pare na amul parce que ni ngeen doxalee moo tax seet leen li dee ci réew mi ci xale am na xale yoo xam ne ñu ngi tëdd ci pegg tefes gi woo kooku ñenn ñaa ngi dee ci àll bi xale yi léegi seen yaakaar tas na ñu bëgg ñu ndaxee ay làmb ma ne am na yoo xam ne mënees su ci xóot ndax sport fi lañ ko fekk mënut a ñàkk mun a ñàkk de xale bu reggee foog mu cëppantu kenn aayewu leen loolu

ak lu ñu la def ñun population bi ñu ne pàtte di seetaan lii xanaa ñi ci nekk ci kaso bi amuñ ay ndey ak baay wala ay jarbaat wala ay bàjjen wala ay nijaay yu nekk tribunal wala gendarmerie mille trois cent et quelque wala mille deux cent et quelque personnes juróom-ñeenti weeri yàlla nga tëj nit ki loo ko tëjee te yow nga am ñoo xam ne dañoo sàcc alal réew mi détourné alal réew mi Covid 19 bii. ah am ngeen tey 1000 personnes tey am nañ kaw 2000 personnes am nañ kaw 3 tamba 300 personnes 3000 ñëpp tit nek ga yaangi ngi tibb bi diko seddo li rek moo fi nek ah yi ngeen xew tey mbour mbour am nañ legi 40k kaolax 39k tambacounda 78k touba ñu ni touba 4k ah, mo fa am 4k daal tegg sen tank fofu xamne wa touba indi lañ mané naxaati jegg na dayo alal ji sacc nañ lepp te du ngeen deg Macky Sall wax ci de ana ñu def loolu te yéen yéen ngeen ko ana ñu def loolu tax waxu ci dara lu tax waxu ci xanaa seet li koy intéressé ak kan la fi bëgg a teg ba rocceeku dem parce que xam na ne waaw lan la tiit ci bu bàyyee fii dafa am problème wallahi maa ngi lay waatal yow Macky Sall ni Ousmane Sonko mii soo ko libéré woon mu ñibbi këram nga libéré ko bàyyi ko xam ne tey réew mi tanewoo ko fii seet sa diggante sa borom Ousmane Sonko nekkul koo xam ne dafay falu daal di jóg jàppaleen ma Macky Sall déedéet waaye nag dana xool li fi Sénégal yi def Ousmane Sonko sax moo ëpp teew yërmande ci ñi nga yaakaar wallaahi wal quraanul karim Ousmane Sonko yow fi mu ne tey boo bëggoon jàmm am boo bëggoon noppalu libéré Ousmane Sonko mu dem yoonam bàyyil présidence mu jàll Sénat bàyyi leen fi nekkoon redressé réew mi mu normal nga def élection yu jub mais fi mu ne élection yii ci yoonu yàqu lu jëm te parce que wane woo benn signe bu baax wane wuloo ko ñun nag dañ la koy wax mu neex mu naqat yi dañ la koy wax munoo ci dara. parce que moom loo ñu moom loo ñu ñun duñ la wax lu bon duñ la xas duñ la wax dépassé ndax lu tax mooy deret ji nga juddoo mooy deret taxal pulaar ñu xam ci nit ñi parce que mën naa ne cent pour cent yëpp ay xaafisu quran ay borom xam-xam ay ji jiitekati juma moo tax man du ma leen jàmbaaraam déedéet parce que ay nit ñu baax rekk ci nekk nga juddoo ci toujours dama koy wax ma yaakaar ne mos dina boo demee ba yàgg di nga dëpp di nga man kat dafa am fu ma bokk ak loo xam ne tey rus naa ko waaye déedéet ku wax ci télé rek ñu dem jëli mais lii lan la dama bëgg nag yéen ñi nga xam ne yi ñun ñoo yéen bokk réew mi muy gendarmerie muy police muy tribunal seet leen seen digganteeg yàlla yéen ñi ko dirise ndax lii Macky Sall def jaadu na wala jaaduwut xaqulay ah, taala rek laa leen laaj ndax lii jaadu na xoolal tàngaay wi nga tëj ci ay nit juróom-ñeenti weeri yàlla te a wax loo leen tëjee koo laaj mu ne kii dafa defoon benn tweet ci internet

parce que boo yemee ci daara ji jàkka ji néeg bi loolu rek ngay xam bu buur ñëwee boo ko moytuwul mu sànk la lu baree bëri ñu dal xëy na sax du foot ñàkk xam la waaye nag nañu delloo suñ xel te bañ a noppi bañ a noppi wax te yàlla tax maa ngi gërëm nag suñu mbokk yi nekk Amérique ñi nekk France ñi nekk Italie Allemagne Suisse ku lim juum ñi nga xam ne tey ñu ngi dégg seen i live ñuy wax waxuñu lu bon de seen xol a jeex seen xol a jeex parce que boo nekkee ci dëkk. dégg-dégg ñu ne sa rakk dee na ci géej gi dégg-dégg ñu ne sa papa wala sa doom bàjjen jàpp nañ ko mu ngi ci kaso bi wala sax nga am ñaar ñoo xam ne yaa ñoom a bokk ndey bàyyi ñu tëj leen ci kaso bi te du yoon foo jaar mer foo jaar am naqar wala nga ñëw aéroport ak coono war a ñibbi sa kër sangu ñu jàppale jàllale la ci loolu itam yéen yéen waa DIC yéen waa tribunal waaye waaye ngel la waaye lii laay war a sóol yii waaye waaye Macky benn Macky Sall bii jeexal na bu leen yàq seen kanam ëllëg maa ngi félicité Sabassi Faye xaw ma ko di la ñaanal yàlla di la wóor wax ne la continuer ci dëggu yàlla ngay àndal ak ab yonentam doo perte mukk bi laa yumi diini du Ndir maa ngi lay sant xawma la mosoo maa gis waaye donte kon am na lu xew ca gannaaw waaye lii nga def nii moom jox Ousmane Sonko raison teg ko ci atte bi juge bi atte maa la ci remercier bu baax a baax a baax a baax ak ñi nga àndal ñépp waay waay waay waay ma ne waaye Sénégal ngeen la waay ñun Sénégal nañu delluwaat xoolaat suñu bopp waaye bu ñu bàyyi rek kenn mu yàq réew lëmbee réew mi rek moom kenn bis bu yàlla sàkk mu génn lu bees bu ñu acté mu ne du ma ko nangu te yow réew mi xanaa luwaa kay xanaa moo moo moo seefi lépp tribunal kay xanaa dara moo nekk ci ko kaw tribunal mais Macky problème bi ëpp na ëpp na yéen parti opposition yi maa ngi leen di ñaanaat élection yi ñëw na de su ngeen tasaarawee nii ku nekk noppi ngeen sax ci débat yi rek débat yi dul jeex ba kañ débat débat débat ay werante ay werante ba kay élection yi def benn weer. ñuy ngurumtu ay ay par rapport ak yoon xamul élection yi kenn du ko toxal bu leen ko toxalee fii billaahi àdduna tukki seen kaw su ngeen yaakaar ne Ousmane Sonko ngeen di bañ a jàppale wala leneen billaahi da ngeen loro Ousmane Sonko lii yoonam nekku ci lii problème réew mi la problème réew mi la waaye waaye waaye bu ñu yàq Sénégal waajile waaye waay nañu gore waay waay nañu mel ni mag ñu meloon waay waay waay nañu fexe ba téye suñu réew mii téye diine ji waa ji waay waay nañu fexe ba bu ñu lorante fi nekk nii tey dëkk bi yàqu na complètement lu waa amatul. am na ñoo xam ne sax dem tribunal ndax tayal tayal nañ ko waaye waay ji kuñ ci bëgg a jëlee te lànk leen waay boo jëli nit di ko tëj bàyyi koo xam ne dafa détourné vingt cinq milliards xaalis ko bu détourné ko yéen gis ngeen li yàqu ci réew mi yëpp ñi ko def ñu ngi fi xoolee waxule leen dara soo mënee dama jëli dem ba ma bañ am ngeen ci droit li ëpp na kenn nit sonal ñu billaahi wallaahi taala Macky Sall sonal nga Sénégal sonal nga nit ñi sonal nga mag ñi sonal nga sëriñ si sonal nga sax ñi si barsàq billaahi wal kitaabi parce que lii kenn mosu ko yaakaar mbokk yi ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.